ñoom nag ñu li tax ñu koy félicité en tant responsable di ko félicité ci turu département bépp ndax fi mu yóbbu tey bis bi bis bi mos faa egg ndax ki fi nekkoon di Aminata Mbengue Ndiaye jàmbaar la woon mais responsable yi xam moom la jël ci journée bi Aminata Mbengue Ndiaye mos koo jël mooy restauration bi def na ci plus de 43 millions ñoo xam ne ku fi ñëw moo la jox ceeb responsable bi la jox na la ceeb ak nag ak diwlin ak pambateer ak soble ak la koy togg kon donc kooku kon dañ ko war a félicité ndax bëggut ñëw nit ñi ñëw mu woo leen ñu jógee réew ak réew wala ñu jógee ci ci dëkk yi soree bari ñu ñuy xiif wala ñuy mar kon boog ñu ngi koy félicité turu département bépp ñi responsable yi politique yi ñi xam ne amuñu lu président président ñu ñor fuñ jë fu mu nekk ñu ne fa fu mu néew néew ñu fa kon ñu ngi koy félicité di ko remercier sant di ko gërëm ñu xam ne mention spéciale gis ngeen fii dem heure bi jotu heure bi ñu président ñëw gis nga dafa fees bay tuuru kon moom ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan di ñaan nag président de la boo amee ministre mel nii da kaar jàpp doole ko xam ne moom am bëggul lu sa ndam di félicité waat bu baax a baax nag président de la république ci taxawaayam ci réew mi ak ci sàmm yi vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm.